fin d'année bu musul am fenn ak Welma boutique la bière des VIP ay cadeau yu neex pour anne bii du 13 décembre au 13 janvier Welma mi ngi en promo li ko dalee moins de 30 pour cent 50 pour cent ba sax 70 pour cent wàññil nañ leen ko pour seen fin d'année mën a neex ñoo ngi Sacré Cœur 3 derrière boulangerie jaune ci koñu mbay Dieye Faye bi wala sax ngeen wooñu ci 77 555 21 67 wala 77 370 43 43 Welma boutique le prix s'oublie la qualité reste. Modou MMA bi doo ci wax. MMA bi man daa ko bañu ma mbëri defi MMA parce que kuñ ci fay sa kër nga ko yóbbu sa wéjur ngay teral et loolu lool lañ bëgg si ñoom mais mbër dafa war a jox entier muy def wala doomu adama nga respecté sa bopp mooy maanaam nga entraîné ji entraînement MMA parce que MMA du lamb rek ngay mën da ngay mën arts martiaux dafa am ay arts martiaux yoo war a mën pour mën a dem defi MMA am entraînement bu MMA laaj am régime bu MMA laaj am coffre bu MMA laaj te loolu sunu mbër yi dem yëpp amuñu ko pare wuñu ci loolu Siteu amoon na ko parce que bi mu nekkee États-Unis yàgg fa daan na entraîné entraînement MMA mais fii dafa ñëw di préparer Papa Sow ci diggante bi mu bëgg a delluwaat dem bëre ji munul nekk ñàkk coffre moo ko jàpp ak ñàkk préparé bu baax en combat am bu amoon coffre mën na cee génn parce que ndaanaan la garmi la mais ku Siteu entraînement MMA bi mu war a def def ko bu ko defoon tey jii day day daan Saliou Ba. Euh, Modou Mbaye dugguma la gis nga Siteu dama koy wax benn affaire rek Siteu du Saliou Ba du Modou Mbaye dafa bari mboola mu ko topp dafa bari ñoo xam ne dañ koo yaakaar Siteu warul ñàkk a pare di def ci MMA ndax MMA du ay du fo tubaab mën nga ñëw xamula nga daan ko. tubaab kenn du ko nax ñaari yoon te tubaab heure boo defee benn benn benn benn benn compétition ba mu jàng la pour nga daan ko yomb te Siteu combat bi soo xoolee xam ne physiquement pare wut ndax bi mu taxaw di kaaroo kaara koora ak waa ji nga xool ku yi mu dóor mu leer na kii nekkatu fi ngi mi ngi dóor doole te bi mu demee ba jaaxle dem ñibbi Sénégal ñibbi Sénégal booy bëre ji dafa dafa daw plaqué ko tëdd ak moom ci suuf mais ñëwuloon pour daan xam moo tax mu def ko daa demoon noppal yi gis nañ benn sax mu mujjee kon mais waaw tëdd daa ñëw tëdd ci kaw waa ji noppalu waa ji xam ne kii su fekkoon ne sonnul daf may dóor waa ji écarté loxo ba mu génn mu prise ko. ni ko waa si te moo ko njëkk a tëdd di noppalu ci kawam. dafa daan waa ji dem di noppalu. boobu daf ko waroon a yéeg ci kawam dóor ko. jeexal lamb ji léegi nag bu ko waa ji waree ci kawam enchaîné ko dóor ko ay coup lamb ji jeex ci te nañu respecté dañ koo bëgg. bëre bëre bi ñuy wax sénégalais ñoo ko dàq est-ce que nga ko. waaw ñoo dàq bëre. bëree lutte lutte simple lutte pure ñu ñoo leen ko dàq fukki junni. mais gis Reug bi muy def combat boobu noonu waa ci bëre bi ko tenir en escale. waaw non non waa waajoo du xëy na mën na jàng leneen lu dul bëree bu dee bëree rek la àdduna ñun ñoo ko fi dàq. am na nag mais lutte bii laa la wax waxuma la lutte libre waxuma la lutte gréco-romaine bi avec bii ñuy ñuy def ñun ñoo ko fi dàq mais dafa am lu mu àndal man bañu ma mbër mu def MMA mu yow Lamine mais li ma bëgg mooy mbër moo xamante ne nii. tey day optionné da jël MMA def ko option mu bàyyi làmb mu dem entraîné ji entraînement MMA am staffu MMA ba pare bañ a def comme MMA yu simple yi Siteu combat bi UFC la bëri la xeexee la ma wax jour combat bi fajar man ak Siteu wax nañ presque une heure de temps avant muy bëri ji yàlla xam na ko mu may wax ni daa mel ni UFC ci li ma dégg UFC lay xeexee comme que nag am na chance su dugg UFC am na chance su dugg fu mag fa kon na góorgóorlu xool li ko MMA mën a indil bu dee ci la a basé wu mu dem def ko bu fekkee ne dafa bëgg a ñëw nekk ci làmb làmb ak MMA pour nga boole leen dina métti trop bu ko bëggee boole benn combat lay di dellu di préparer wu 6 mois pour xeex waaw. gis nga Siteu euh, bi mu jógee ci Papa Sow physique physique physique bi mu indi ak doole ji mu indi su ko enseigné woon préparer MMA waa ji du ko daan mais dafa dafa noos dem entraîné jiwaat. jëwel yi woote na jërëjëf. Papa Ndiaye beneen combat ngi noonu non waa CNG man man daal jaaxal nañ ma quoi seen va c'est du n'importe quoi. arbitre sifflé na Bébé Ama Garga Bébé Ama Bébé Garga Papa Ndiaye Bébé Ama Garga Zalba Saliou Ba Saliou Ba combat ngi noonu ci géew bi de. waaw combat neex ñaari xale yoo xamante ne dañoo ne ci yoon ndax Garga 2 Bébé Garga wala Garga 2 nekk mbër moo xam ne dóor dóor naa la nekk nekkoon ci ay bi yu baax waaye ñu gis ci diggante moom ak Caatu euh, Waalo mu am ci benn fakasal yàlla def mu ñëw di leen teg xale boo xam ne nii nag yaakaaru ginnaaw raay la yaakaaru Pikine la ba pare gëm boppam. mosu ñëw ci làmb nga ne kii te indiwul entraînement mu nekk combat boo xam nag ku ci nekk mën ngaa daan sa morom waaw. moom xanaa xam nga arbitré naa ko Mbapat moog da kii dara dara. moog dara looro looro. waaw looro xam nga xale ginnaaw raay ñu ci bari looro lañ ci seen bopp ñoom jet li ak ñoom ganna booyo yëpp bëri nañ looro ndax mosuma dem looro waaye xale suñu daan dem nañ mën a tàggu xale yu bari fa lañ eh, essayé seen bopp. benn booy bu dëkk ginnaaw raay xalil xam naa ko dañ ko doon wax John xam na fa ak Benz John Naar bëree ak fii ak Kara Doole bëree ak Njambaan 2 fii lañ bëree woon xale yi ngay wax ñëpp laa xam Zoro bi bi bëri lool Zoro ak a mënoon bëre xam sa cosaan Zoro bu xees maa ko xam xale bu wane la kooku euh, lenn rek lay jooy mooy taay bi waaye dàq koo bëre amut loolu maa la ko wax noonu la demee kookooy Salba Salba bu bu improd. <laughs> waaw sa patron Médine. sama patron euh, dafa nekk ci yeneen liggéey waaye dina ñëw. temps <laughs> de tey démb day anniversaire da doon anniversaire. waa anniversaire ba xam naa instant bi ña nga ca xam nga loolu mënut a yomb ndax euh, patron impro mooy def anniversaire loolu moom mënut a yomb euh, Lamine. ñaari mbër yaa ngi damante baaraam Salba. foqante baaraam su ta meeru baax. foqante baaraam <laughs> voilà. loolu ko waaw loolu leer na. loolu leer na bébé Ama xam naa ne ñàkkul ne am na lu muy dajale waaye bébé Garga da koo bàyyi làmb ji bébé Ama nag su ma doon moom damay fexe njëkk a jàpp ndax euh, am na volume am na doole mais euh, euh, cat cat kii bi dafa gàtt cër yi dafa gàtt sa cër njëkkee gàtt su say cër su gàttee da ngay fexe njëkk jàpp soo njëkkee jàpp bala sa adversaire jàpp nga tàggoog moom. bébé Garga combat mu mujj nag bëre na bëre bu naqari. waaw arène nationale. waa bëri na bëre bu naqari. waaw euh, gis nañ combat mag sang. gis combat mag Albarté Kayre. yooyu bu ci nekk fulla ak fayda la ci génne. gis nga jàppante nañ daw loolooy Cheikh Yabbi. waaw Cheikh Yabbi Cheikh Yabbi ngox. loolooy Cheikh Yabbi déggal Salba ak garaaw Salba kon Cheikh Yabbi Bébé Garga buñ ko tuddee suñu xel day dem ci Garga Mbossé. xam nga Cheikh Yabbi. waaw des fois da ngay seex su nekkee tàngal da ngay càqam dugub. waaw waaye nekkee ta kaani da koy buusu xam naa nag la fa fekk. est-ce que du potaas bu tàng. waaw su ka potaas bu tàng moom nee na lex bu ko lex bu ko njëkkee doo ko mujjee. moo tax koy yàbbi. waaw koy yàbbi koo koy salba. taw na yooru na dafa téléphoné euh, euh, song bi boobu baaxul dafa téléphoné song bi xam nga sooy song Lamine da ngay dem ci kaw wala nga dem ci suuf wala nga xeex wala wala nga jàpp mais mënoo xeex bëgg jàpp wala nga bëgg jëm ci kaw jëm suuf ñaar ñaar la hésité amul hésité da ngay jàpp tànk. wala nga sol naax wala nga jàpp gis nga gis nga jàppante nañ dañ koo kor korante nañ te song bi def léegi nanguwuma gis nga xale booy song nit booy song sa lo sa ñaari loxo yi ñoom ñëpp dañuy dajal suuf wala ñu dajal ci kaw mais dafa gàll ci kaw yebal benn loxo ci suuf loolu de pour ñu sol naax day day yomb moo tax waay gis nga daw na ci suuf amaa jël na ci suuf. mi koy jaay doole. waaw amaa mi ngi dajale. mi ngi koy jaay doole est-ce que mu ëpp doole. waa amaa neexu la ëpp doole. ndax euh, physiquement soo xoolee taxaw na te xale la waaw soo xoolee Garga ko bàyyi ak làmb ji da koy bàyyi pour mu def mu contrer ko mais nag ama euh, lal ko ci làmb wóorul ndax dafa am doole lu mu jàpp moo ko moom ama su ma noonu du ma siggi dangay fexe xaaj Garga loolu moo nekkoon avantage bi su boobaa dóor gis nga li mooy xaaj bi voilà. daanu na ama daanu na. ama nga. booy bi da koo lal. ama daanu na da koo lal loolu la ñu naan lal. da ko bàyyi ba mu def action mu ak contrer ko. waaw dafa bàyyi ba mu def action mu ko. waaw daan. Uh-huh. mbërum Omzo bu Garga. lan wax si combat bi. daan nañ bébé ba pare xale yi dañoo tële bëre waaye. waaw tële nañ uh, xale yi dese nañoo mën a bëre. arbitre naa ko Mbapha dañ koo jaxabaloon mu daan. <laughs> yii moom bébé Ama Loro. ñëwoon na Loro bëri si ma ñoom ñaar ñi. non Ama mi ak ok. gis nga yi. fin d'année bu musul am fenn ak Welma boutique la bière des VIP ay cadeau yu neex pour année bii du 13 décembre au 13 janvier Welma mi ngi en promo li ko dalee moins de 30 pour cent 50 pour cent ba sax 70 pour cent wàññil nañ leen ko pour seen fin d'année mën a neex ñoo ngi Sacré Cœur 3 derrière boulangerie jaune ci koñu Mbaye Dieye fay bi wala sax ngeen wooñu ci 77 555 21 67 wala 77 370 43 43 Welma boutique le prix s'oublie la qualité reste.